ñoo ñu valider nañ leen kon est-ce que dañu war a continuer rek ak ñooñu gaawal mbir mi xëy na sax ñu fexe ba balaa fii ak le deux ñu fexe élection am loolu tam position la ñii neen déet dañu war a ubbiwaat ay inscription su ko defee élection bi ñu def ko ci anam yu gën a gaaw waaye yuy permettre nag képp ku war a bokk mën a bokk su ko defee kañuy tànn nekk tànneef boo xam ne bu rafet lay doon bu leer lay doon te bu bu bu bu bu ànd ak ubbite lay doon donc loolu nag la ñu war a waxtaanee à partir de altine yaakaar naa ne maa ngi woo ñëpp ñi si war a ñëw ñu ñëw jiital Sénégal vraiment pour que réew mi dox si jàmm ndax nag jàmm mooy li sëñ maam Baye waxoon lépp lu waaye am te jàmm dana ko di ko fa teg uti jàmm ba am jàmm doog mën a continuer si la nga la nga nekkoon ndax boo amul jàmm mënoo def dara mënoo def développement mënoo def dara dara mënoo ko def kon dañu war a sàmm réew mi si jàmm jooju dem ci élection yi si jàmm nañ ko daan defee at mu ne saa ñu amee élection su ko defee nag képp ku yàlla tudd ne yow yaay wutu si place bi te suñu borom pare na démb balaa tey ñu rafetal mbir yi su ko defee ñu nangu loolu nga xam ne moom la réew mi dogal wa amaa li nga wax nag si question yi bari woon na ah, am na nit yu faatu may jëlaat occasion di jaalewaat seeni mbok ndax président de la république fou doomu rew wàññeeku mo xam accident la mo xam ci manifestation mo xam ci lu mu mënti doon ah metti lay don tiis lay don kon suñu sago ben doomu rew mi du wàññeeku surtout ci ay manifestation politique way nak xam ngeen ne rew ay charte ñoko ko yor am na loo dañ koy tuddee toujours ndampaay xëy na waxin la mën na nekk soutien mën na nekk indemnisation waaye boo tuddee indemnisation rek de indi tribunal waaye li am solo mooy ni ñu dimbalee askan wi njaboot gi bu tiis amee accident yi day am léeg ngeen gis président dem état nekkul responsable waaye mënoo am tiis accident bu diis am te doo taxawu askan wi loolu def nañ ko defaat ko defaat ko donc yu mel noonu yaakaar naa ne Sénégal war na mën jël ay ay ndimbal yu yu takk yoo xam ne mën nañ koo baaxee njaboot gi nga xam ne dañu perte seen doom muy pertement boo xam ne tam réew mi yëpp ko ñàkk loolu ñu fexe rek ba mu gëj fi am ba mu am mu bañati fi sax am donc loolu mën nañ ci dox yaakaar na ci jëmmi jamono jërëjëf président yaa xam pour votre future destination waalo Fatick Sine boobu am nga man sa dernière question. non non mais dinaa ko tontu ndax hein. euh, il faut que ñu xam ne aussi euh, président depuis président Senghor. dafa jiite réew mi ñaar fukki comme président de la république. muy dem bàyyi fii premier ministre muy président Abdou Diouf. mu nekkoon njiitu parti. soo gisee président yi bu ñu wàccee liggéey sore dañuy bañ a gêner kii ki leen di wutu parce que mënoo nekk njiit si réew. yor sa parti jité ko ku nek ci sa bir parti ñëw nek président nga tok ak mom ci même bëss bi même bërepp bi su ko défé ku méré fi jog dem seeti président boobu jixi ak commencé am ay jafe-jafe di am lolu moo tax nit ñi dañuy féré tuuti waye sa wa parti dañuy kité réew mi dañuy dem lu xew di nga dalu ci xeyna na sax da ngay tok at rek wala at ak lu top be pouvoir bi toog be président bi jël ay markam ko défé nga ñëw man mi ma ngi won ay tol ak nak donc mënuma jóge Sénégal waaye nag bu yàlla dogalee nga jóge ci réew mi surtout nag bu fekkee da nga jàpp ne sa waa kër ñoo ñëw euh, boo bëggee toog réew mënul am ñaari kilifa il faut que kilifa bi yàlla indi mu bees ñu may ko espace mu mën a liggéey loolu moo waral loolu waaye du càgganu nit ñi dañuy génn rek dem feneen waaye nag newoon naa bëgg naa des ci Afrique ci Sénégal du tere nag danaa dem fépp fu ma liggéey war a mën a yóbbu wala ay soxla mais Sénégal moom na la leer ne muy Waalo muy Siin muy Fuuta muy fépp Casamance mm-hmm. donc euh, incha allah dinañ continuer di fi ñëw hein. voilà donc euh, RTS Mariama Dramé alors monsieur le président yaa ngi wax euh, waxum dialogue loolu yëpp pour apaiser climat bi la euh, mën nañu xam ñan ñoo ci bokk ak ngeen ñëw ci li ngeen ci fas yéene pour élection yëpp am si jàmm yaa ngi wax tamit waxu ay amnistie mën nañu yaakaar ne ki nga xamante ne xam nañ ko mooy candidat Diomaye Faye bi nekk prison ndax mom war na mën bénéficier ci amnistie bobu wala keneen ku melni Ousmane Sonko. waaw loolu xam nga buñu wax rew dina tollu fo xamne ne. li mu war a def mooy luy jubale nit ñi ak luy tax jàmm gën a yaatu loolu nag léeg-léeg amnistie dana am amnistie mooy dañuy effacer yi fi xewoon dañuy fàttali fi xewoon fàtte sax xëy na du fàtte waaye daal dañuy mel ni loolu mosuloon am réew mi mooy nangu loolu ngir ubbi page bu bees loolu nag dama jàpp ne comme maa ngi dem li ma gënal mooy man ma bàyyi sama ginnaaw Sénégalu jàmm Sénégal boo xam day continuer liggéeyam ci wàllu développement donc bu jaree ñu def loi buy génnee ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu yoon mais jar na ko pour Sénégal nekk ci jàmm jar na ko ndax bu ñu continuer jàmm bañ a am ñeneen dinañ faatu yàqu-yàqu yi dina gën a bëri ñeneen dañ yàq ñàkk seen alal ak loolu te su boobaa dootuñu tal développement dootuñu tal di dox ci soxla ndaw ñi di leen indil li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg wala seen i yitte loolu nag nit ku mën a kuy seet rek intérêt réew mooy mën a waxee noonu waaye boo xool intérêt politique rek xëy na bañoon ko def ci wàllu politique moo ëpp moo moo ëpp intérêt moo ëpp intérêt si man si sama camp waaye réew mi la ñuy xool ak avenir réew mi donc looloo tax ma ne war nañ mën a dem ba yegg si foofu def amnistie au besoin bu ko laajee liberté provisoire pour ñenn ñi liberté conditionnelle pour ñeneen ñi mhm. loolu tàmbali nañ ko pour créer climat d'apaisement ndax élection yi ñu jëm mën a nekk élection yi ñu def ci jàmm ak salaam. est-ce que coalition Diomaye président dina bokk ci dialogue bi ngay woote. ah loolu ñoom ñooy tontu ci loolu ndax en tant que man daal dina recevoir candidat yëpp bu yàlla defee balaa boobu ñoom bu amee liberté xëy na moom mooy décider ne dina ñëw wala du ñëw mais. jàpp naa ne dina xam am liberté wala mën na génn ñoo fekk ci dialogue bi tamit. Ah, waaw bu ay avocat am ñooy lijjanti loolu xam nga yoon tam dafa am ay procédure euh, président mënul wax nit génn rek ñu dem ubbi bunt bi génne ko dafa am yoon dafa am procédure bu fekkee wàllu liberté provisoire la avocat yi ñooy bind euh, ak juge d'instruction bi ñu xool après loolu mën na nekk dëggam volonté bi c'est ça euh, li ci des nag moom amnistie rek te loolu loi la loi bu amee dafay dafay loi amnistie dafa vous ak grâce président bu nit nekkee kaso ba ñu jugé ko ba mu pare ba tribunal pare ci moom président Monoko. na ko jéggal li ñu tuddee grâce La constitution moo ko may sañ-sañ boobu moo tax toujours bu tabaski jotee wala korité wala 4 avril wala 31 décembre ngeen gis président libéré lu ëpp ay nit pour président yi ñu libéré ñu ñu ñu féexal ko su ko nous ñooñu tam mën a pour changer seen bopp mën reprendre une vie euh, grâce nak dafa am fu muy yem waaye amnistie moo ëpp doole amnistie nag assemblée nationale moo koy voté ndax loi la loi la boo xam ne danaan day dindi ñaawteef yi amoon wala jafe-jafe yi amoon crime yi amoon wala délit yu mag yi amoon su ko defee ña nga xam ne dañ leen ko tuumaal automatiquement bu loi bi jàllee dañuy dindi tuuma yooyu yëpp su ko defee ñu moomaat seen bopp dootul am benn conséquence si ñoom ni si seeni droit kon nak euh, defena naa loolu différence entre grâce amnistie et liberté provisoire comme nous ko waxé euh, ci français légui euh, merci. président Sànq bi nga commencé wax. Hmm? wax nga yow sa mandat le 3 le 2 avril lay arrêté. Hmm. yow laajoo leneen. Hmm. da nga wax Sénégalais lerna est-ce que diggante lolou ba mandat bi am élection mu na am diggante fête 2 avril.

lépp lu ñu def fii lañ koy tibbee su fekkee ne fii li fi nekk ñëpp bokkuñu uh, atte bi wala ni ko déggee du ne du du du benn kenn mooy juge boo xam ne moom moom mën a firi li ñu war a jàpp muy conseil constitutionnel kon bu fekkente ne élection bi amul fii ak le deux élection ba ba ba ñu fal président kon

donc loolu la man damay pare le 2 avril c'est soxlawuma yokk dara ci sama mandat wax naa ko mu leer waaye bu paree te ñu ngi ci processus électoral bu pareegul ala kuliyaalin faaw ñu xool nan lañuy ñuy saafara ban euh, saafara la indi si mbir moomu ba nga xam ne élection yi dinañ dem ba mu pare ba président bi ñu fal jël fonction. te saafara boobu si dialogue bi nga yaakaar la war a mën amee. dialogue bi mën na si joxe xalaatam.

anam yo xamné ne d'accord ñu ci moy di tubab di wax candidat yu tuddé sen bop spolié am dañ nangu seeni parrainage donc ñu ay acteurs lañu waye nak acteurs yi yeneen yi gëna mag moy la classe politique classe politique nak c'est les partis politiques c'est aussi les acteurs de la société civile ñoo ñep parce que ñun ñep ñoo bokk réew mi ce sont les forces vives de la nation bu réew tolloo fi képp koo xam ne mën nga si wax wala dox si ngir réew mi nekk si jàmm continuer liggéeyam yaakaar naa ne jot na nga wax si wala nga def loo xam ne dina gën a defar euh, mbir mi ñu dem jàmm si élection te bu ñu jiitalee réew mi rek jàpp naa ne si ñaari fan ñaari fan sax ëpp na ci benn fan war nañ mën a d'accord ci loolu donc loolu lay ñaan que ñëpp ñëw altine gën ngaa yàgg talaata ñu mën a fixer datu élection bi mën a décider aussi nan la ñuy def pour après 2 avril président Birame la sa yéene pour euh, dalal réew mi ñu bëri jàppoon ne sax euh, am na ñu ñu bàyyi ñu nemmeeku ko mais ñu bëri jàppoon ne aussi kon ñi gàddaay war nañ mën a ñibbisi am kenn si ñoom ku ñibbisi ñu jàpp ko tey daanaka tribunal greffier yi danoo banque seen yoxo euh, loolu tamit mel ni luy mën a xajamal sa woote jàmm bi nga woote foofu est-ce que amul lu jiwaar loo tuuti entre yow sa mbëbër ak jàpp yi nga xam te ni ñu ngi koy nemmeeku. waaw xam toujours si état dafa am ku nekk rôle boy jouer ak pouvoir yoo am pouvoir juge président mënu si dara mais bu ñu jugee ba pare wala bu ñu defee seen action état mën na xool à travers son parquet maanaam procureur yi procureur généraux xool bu dee ñun dañu ne dañu bëgg daal vraiment ñu dalal lépp dox jàmm parce que loolu fa la réew mi toll war nañ mun gis kon ab solution ndax yaakaar ni ni ñu ñu bu fekkee dafa amone mandat buñ ñu leen def wala amna luñ lu ñu leen toppoon wala kulyaa leen bu ñu ñëwee faaw ñu jëlaat leen ñu ñëw wuy ci yoon ba paré non après qu'est-ce qui va se passer danañ xol ka bi lan la exactement waye japp na né même bu dee ay greffier euh, waruñ nekk au-dessus de la loi kon war nañu dimbale aussi réew mi ñu fexe xool cas bi lan lan la ak nu mu tëddee bu fekké né momit it euh, on a bénéficié aussi de la liberté provisoire wala mesures parce que kaam exactement lan la su boobaa a arriver à des solutions madame si ay euh, ay témoignages aussi si conditions de détention yi ñi naan dóor nañ ma def na ma nangam tam ay pour xool si anam la si yan anam la ñuy ak ministre de la justice garde des conférence de presse barki tontu na lu yaatoo yaatu ci mbir moomu du ci ñëwaat waaye dama jàpp ne ku ñuy dóor kaso wala di la torturer doo xaar ba génn ngay doog a wax dañ ma doon def lii dañ ma doon def laa te kenn mosu la dégg nga wax ko ndax doomu adama doo war nangu ñu lay teg ah, loo xam ne du dëgg du yoon rawatina wàllu torture Sénégal torture amu fi dana ma jaaxal lool suñuy police suñuy agent pénitentiaire ni leen jàngalee suñu policier gendarme ñu ne dañu torturer ay citoyens. accusation nag taxul ñu ne la ñu accusé am na waaye bu fekkee da nga nekk kaso te yow kaso bi ñëpp mën nga wax ak ku ñu lay avocat ngi ñëw te ne comment subitement on peut dire torturer nit ñi dans les prisons loolu man dafa tey sama xel te mënuma ko nangu lu ñu andi preuve bu koy effectivement ay eh, enquête war na mën a am pour saytu